jërëjëf maam Cheikh Ibra Fall jërëjëf Cheikh Mortala Fall barkab Cheikh Mortala Fall euh, maanaam Baye Cheikh Khadida moom li mu wax euh, dara mënu tee dañ ñun alalu Serigne Touba lañu te lii nuy liggéey ñun doyal nu ko dara lu buñ ko yenoo ñëw jox ko Serigne Touba waaye nag xam naa ne ci biir kàddoom yooyu dafa am lu ma ciy sos dong li ma ciy sos moo di ne fukki koor gi waa kër Cheikh Mortala Fall xam ne si lu ñuy jibbale seen seen seenam kumte ñuy ñaan mbokku taalibe yépp képp ko xam ne seetaan nga ñu fii ci ci ci Lamp Fall leeral gi nga fekk suñu fukki fan wi fii ci kër ci ci ci paaleen ñu yenu su ndab ak lépp lu nu am ak la liggéey ci àll ba ak la nu amagul sax suñ ko mënoon a xëcc dolli ko ci ñu dolli ko ñu ñun jébbal suñu kumte ngir maam Cheikh Ibra li liñ ciy wax tamit du bari ndax maam Cheikh Ibra Fall un point un trait